asalaamaaleykum nuuru laax la di ziar ñëpp di ñëw ci cas Ousmane Sonko ndax démb dafa def sorti wax lu bëri ci ni àdduna di doxee ak réew mi ni muy doxee mu ne day xëy jublu ci euh, nemmiku tuur bi nga xam ne dina ko def ci région senegal yëpp. léegi tàmbali na ko tey ñu gis ne ay jafe-jafe daf ci commencé am ndax ay affrontement yoo xam ne mi ngi jóge ci force de l'ordre yi Macky Sall def na ko barki démb yaa ngi dégg kenn waxu ci dara. man rencontre naa ak ministre de l'intérieur Antoine Félix Diome ma wax ak moom ma wax jox ko mu wax jox ma moom mu yëkkati numéro téléphone am jox ma ko te jamono bi may jox numéro téléphone am dafa wàcc civilu di dem ci palaas yi di saafonteeg nit ñi di wax ak ñoom lu acte boo xam ne la ko intéressé ak la ko ci yëkkati moom moo ko xam te loolu daf ko war yoonu kenn nekku ci mais Ousmane Sonko sénégalais la yor carte d'identité am droit dem fu ko neex ci réew mi fu ko neex yenn fu ko neex fanaan alors léegi bi mu commencé rek force de l'ordre yi jóg nañ commencé di ko rencontrer te loolu ndigal nañ ci am buñ ci amutoon ndigal duñ rencontrer Ousmane Sonko ndax ñoom amuñu benn jafe-jafe ak Ousmane Sonko may wax ne force de l'ordre yooyu ngeen di gis ñu ci bari ay soppe Ousmane Sonko la ñu ci bari ñu bëgg Ousmane sonk lañ ñu ci bari ñuy safo Ousmane sonk lañ ñu ci bari boo làmbee seen xol bi Ousmane Sonko moo ci fees dell di ko tooy xëpp ñuy am naqaru xol ci manipuler bi nga xam ne ñu ngi koy manipuler gis nga dañu war a arrêté yii wallahi lancim ñi ngi wax kilifa yi nañ wax nañ alerté ñu ne tekk Macky Sall moomul réew mi bàyyam moomu ko amul kenn benn mbokkam bu am lenn ci réew mi lu dul li fi sénégalais yëpp am ñu bokkandoo ko dañ koo dénk mu war a jiite war a liggéey wàllam wéy na na waajal boppam dem ci jàmm ak salaam wallahi laasim sénégalais yi déterminé wuñ détermination boo xam ne réew mi Macky Sall toogaat fi di ko manipuler yore ko nu mu nu mu ko neexee barki Seex Ahmadul Xadim jaral na leen seen bakkan man maay première maa ngi jot ay appel maa ngi jot menace yu nekk ngir émission yi may def di wax sama xalaat ci réew mi tamuy lu ma war te diglu ma ci benn mbindeef dañu war a arrêté yi gis nga Macky Sall sëñ taxaa sëñ mbay Si Mansour xalifa Laayeen xalifa Ñaseen dañ ko war a appeler direct ñu wax ak moom li Baay Faal bi waxoon ci walfu nit ñi di dal ci kawam loolu mooy dëkk kilifa yi dañ ko war a taaj ñu ne ko manipuler bi ngay manipuler réew mi ak askanu réew mi daf ko war a bàyyi ci nii wala ci naa gis nga askanu senegal dafa jot sëkk ñun ñu war a jóg taxaw jàkkaarloo ak régime bi fi nekk avant manière lu mu ko jaral nanu ko jaral parce que Macky Sall moomu réew mi jur nit ñi jëndu leen réew mi réewum Sénégal la ñun ñoo ko moom sunum réew la ëppaliwu fi kenn virgule ni mu bëgg a yoree réew mi barki Cheikh a Bamba du jàll bu ci kilifa yi waxut ñun askanu Sénégal ñoo koy fajal suñu bopp te barkib Serigne Touba liy raam ci ñag bi la jëm te dinañ ci